salaamaaleykum euh, chers téléspectateurs de Falnco ñu ngi leen di euh, ziar euh, kenn ku si nekk sa tur sant di leen bëgg bu baax baax a baax ñu ngi fii see sat Ngalandou Diouf 19e journée championnat Sénégal Ligue 2 ngi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ASEL échauffement de ASEL la lañ leen di ni après yi dem ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Ndiambour wan leen seen échauffement e yéen a gis waa la 19e journée en Sénégal Azella qui ki nga xamante ni moom moo di ah, n'est nekk ah, dernière place bi n'est nekk si ah, troisième euh, place bi voilà les remplaçants de il est là les remplaçants de voilà les 11 partants les 11 partants il est là. 19e euh, journée à en au Sénégal euh, Ligue 2. Azel qui qui voilà mu ngi le coach gardien Azel la coach ñu ngi lay siyaar euh, tey euh, ngeen am ki nga xamante ni moo di Ndiambour mu nekk si dernière place ngeen nekk si troisième place bi tey euh, lan ngeen ni lan lan mooy préparation préparation c'est d'abord mental. Hmm. ensuite rester dans notre façon de jouer ne rien changer essayer de contenir l'adversaire de l'attaquer et de de marquer pour récupérer les trois mais Tëngéej yëpp ñu ngi xaar AJEL si li nga xamante ni moom moo di Ligue 1. pour que comme Bale nu mu amee li nga xamante ni moom mooy euh, match yi soog ñu koy yóbbu comme li nga mel ni stade fi nga xam ne moom la El Hadj Diouf maître Ablaye Wade pourquoi pas Tëngéej mënu am loolu. parce qu'on a plus d'espace ah, quand vous voyez l'espace je suis un génie civil parce que je connais les infra pour avoir euh, géré stativement pendant sept ans mhm. donc on a de l'espace on peut avoir deux terrains un le terrain et un terrain secondaire mhm. on peut recevoir même en Coupe d'Afrique mhm. donc pourquoi pas pourquoi pas Rufisque Rufisque de l'espace exploitons cet espace même si tu n'as pas en une seule fois procéder par élimination. Je fais cette année une turbine, l'autre année je fais l'autre. Tout de suite, le stade est fermé. Mhm. On met des infrastructures de logement qu'on appelle centre d'accueil et on crée un second terrain. Voilà le basket qui nous rejoint. Là, le terrain doit être exploité à 100%. Mhm. On est quoi mhm. Quand Agel est attendu en Ligue 1, mais euh, Agel, c'est très bien ça. Donc nous, nous, nous, soignons toujours notre comportement pour arriver en Ligue Pro, en Ligue 1. Nous sommes en Ligue déjà. On a beaucoup d'attitudes, de, de comportements qui, je crois, va nous permettre d'accéder en Ligue 1. Merci beaucoup, coach. Bonne chance. voilà ba léegi rek euh, yéen a ngi ont euh, ki nga xamante ni moom coach de AZ la mu ngi voilà les onze euh, partants ak ñi nga xamante ni de ñi remplaçant yu AZ yi ba léegi rek ñu ngi ak AZ la après dañuy dem. si nga xamante ni ñoom ñoo di ah, Ndiambour Peul dañu nekk ah, ki nga xamante ni aussi tamit moom mooy ah, préparateur physique si nañ la coach. waaw ñu ngi lay doon ziar naka nga préparé ñi di say jour. waaw naa leen daal bu baax a mais tey jii Azer comme li may wax chaque jour ñëpp a ngi leen di xaar en tant que préparation physique ñëpp ngi xaar Azer Ligue 1 pour match derby am banlieue mën a am Tëngéej. waaw waaw waaw waaw xanaa lépp rek teg ko si loxoy buur bi rek xam ne pare nañ côté yëpp daal côté yëpp pare nañ physique pare nañ mental pare nañ objectif bi daal mooy monter merci beaucoup ok voilà ba léegi euh, dañuy dem euh, si ki nga xamante ni euh, moo di si góol yi rek moo leen nga xamante ni ñoom ñoo di gardien AGEL ñu nga Marco Courtois ak ki nga xamante ni moom moo nekk si côté moi. Voilà, les deux euh, gardiens de AZ, il est là. Il n'y a, rien. dañuy dem ah, si ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, waa aussi tamit ah, ma wan leen li nga xamante ni moom mooy seen préparation nee naa leen donc Fall Inco dafa nekkal ñi nga xamante ni ñoom ñoo toog seen kër di naan ataaya wala bokk ñi nga xamante ni bëgg nañ saat xam lu xew saat mënuñu ko xam donc boo leen ja nekkee si fal Inco incha allah ne nga voilà les trois arbitres voilà les trois arbitres de cette Merci euh, d'aujourd'hui. Merci. Voilà le staff euh, de Ndiambour. Ndiambour mu Il est là. coach si yaar nañ leen mais tey lañ lan la Ndiambour préparé. Hmm. mais tey jii ngeen ñëw euh, Ligue 2 nekk dernière position championnat bi mi ngeen fekk si tey nekk troisième position tey jii naka ngeen euh, naka ngeen di indaale loolu. Hmm, ban position. man après bu ma gisee si classement bi man dernière position lañ leen jox mais mar dixième ah ngeen nekk dixième comme boog Asel nekk si troisième position bi. waaw ah. ah. waaw kon yéen daal yéen ñëw jël si revanche euh, seen trois points yi leen Asel ameloon ngeen ñëw jël si daal yóbbu ko kon mu ngi noonu kon di leen wax bonne chance ah, coach rek ñu ngi nyambur ak waa Njàmbur aussi ñu nekk ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa zoru euh, Njàmbur yi neenaa leen euh, Fall Inco la leen jox championnat la Sénégal yi <laughs> Ah. Ah. ba léegi nag ñu ngi fii ba léegi ñu ngi coach aussi tamit ak ah, ki nga xamante ni moom moo di Ndiambour di préparer aussi tamit ñi di waa ay joram ñu taxaw aussi tamit coach Ndiambour coach siyaar nañ la euh, tey jii nga nekk dixième position Asel nekk troisième position tey jii naka ngeen préparé loolu ah naka ngeen ko indaale parce que Azer ale bi donc da leen ñëw daa ñëw foofu jël si trois points ne boo leen maa ngi leen di xaar tënkee boo leen ñëwee peut être mun ngeen ko jël mun ngeen ko bañ a jël si. on est venu pour chercher les trois points. Mhm. on est huitième Azer est mhm. mhm. pour wàññi écart bi daal. ok coach merci beaucoup donc ñu ngi lay bonne chance ba léegi rek euh, après dañ leen di euh, jox benn jour euh, si ASEL la dañ ñëw taxaw benn jour rek char nañ la tur bi la Sagna Ousmane nga nekk ban poste attaquant point excentré gauche tey ale bi ASEL da leen fekki seen terrain ñàmbur ñëw na foqati trois points yi tey ji naka ngeen di préparé loolu ñoom pour ñu jël trois points ñu hmm. la ñuy hmm. wala victoire daal. benn ngeen si jël. pour l' instant hmm. mais lan ngay wax sa naataango yi nga xamante ne yéen a nekkoon si que des fois na toog nañ si situation boo xam ne dafa difficile di ñaan yàlla rek comme génn nañ ci benn phase bi. di ñaan yàlla ñu defaat benn réussite rek. ñu mën a jeexal championnat am merci beaucoup di la bonne chance ok ba léegi kon gars yi nee naa leen Fall Inco lépp la leen jox. lépp loo xamante ni information la donc euh, si li nga xamante ni moom mooy di championnat Sénégal la Ligue 1 à Ligue 2 nee naa leen duñ bàyyi dara lépp fii lay xewee rek donc si. esat, Ngalandou Diouf ak ah, Falyanko voilà dañ gis euh, trois arbitres yi ñu ngi noonu voilà dañuy euh, ñëw rek euh, taxaw kenn si zone Angélique donc sëñ siyaar nañ turu la Dieng ban poste nga nekk capitaine Agel en même temps donc naka ngeen Mm. Mm. merci beaucoup voilà kon gars yi donc dama leen di jox euh, rendez-vous rek si kanam tuuti en direct fii si euh, Fat Inco la label la sans frontière euh, nee naa du yomb Fat Inco la label la sans frontière kon donc sama gars yéen gis ne war naa leen préparation azel la war leen préparation ñàmbur aussi tamit donc gars yi teg leen foofu seen baaraam ma dem te ñëw ngeen jël pause préparer li nga xamante ni moom moo di match bi donc bu leen dem teg leen seen ataay teg seen gerte caaf ngeen xaar ba maa ñëw donc si kanam sama yi acca mu ngi noonu ba léegi rek balaa maa coupé ah, damay jox euh, directeur technique bi nga xamante ni moom mooy Azel donc laaj ko moom aussi tamit naka la préparé euh, coach siyaar nañ la. kon si tey naka nga préparé sa match. alhamdulilah. Ah. Hmm. Hmm. on va assurer mais euh, da ngeen àll bi da si terrain am gagné ka. waaw Mais le bon Dieu en a décidé, nous devons vraiment les trois points. Mmh. Aujourd'hui, on va consolider cela. C'est quatre nous Merci beaucoup, coach. Merci. Déjà, bonne chance. Hein? Voilà, quand gars, il doit dire les pauvres, donc quitter les gens, direct bi ñu dem naani ndox donc Madiarra di mais ngeen teg seen ataaya teg leen seen ataaya donc maa ngi ñëw léegi léegi ñu commencé li nga xamante ni moom mooy Massi Ndiambour ak ki nga xamante ni moom mooy Azel Azel nekk si troisième position bi Ndiambour nekk dixième posision bi donc nee naa leen di yomb Azel ale bi daa dem fi nga xamante ni moo di Ndiambour gagné ka donc nangu trois points yi Ndiambour ñëw fi nga xamante ni moo di Tëngéej nekk Azel na comme te danga ma gagné ale bi doo ma gagné li nga xamante ni moom mooy retour kon gars teg seen nee naa teg leen seen ataaya teg seen gerte caaf wala gerte kem bu leen neexee maa ngi dem fët fët ñëwaat sama gaal léegi-léegi